Euh, donc dañu euh, dellusiwaat fii rek euh, di ànd ak suñu partenaire bi di Abdou Latif nekk ONG Direct Aid ñu nekk ONG ba nga xamante ne ni dañuy jàppale xale yi ci seen wàllum opération boobu ba léegi ñu ngi koy def waaye ren mel na ni dañoo gën a yokk seen i jéego ci wàllu boobu noonu ba tax na bi ñu tàmbalee at bi jëloon nañ lu tolloo ñeent fukki xale euh, jël leen en charge ñu opéré leen te duñu fay dara garab yi si dem yëpp ñu ñu jàppale leen si waxtu bi ñu toll nii euh, tàmbali nañ benn camp ba nga xamante ne ni euh, lu tolloog maanaam ñaari yoon lu ñu defoon ci yoon bu njëkk ba lu donc lu tolloog juróom-ñett fukki xale la ñuy waaj jël nii en en charge ci wàllum opération beeg garab yi. bu loolu weesoo tamit dana amaat euh, yeneen euh, ñetti camp yi ñuy ñuy boole euh, ba nga xamante ni bu ñu demee ba boole yu xayma loolu yëpp lu tollook ñaari téeméer rek ñeenti fukki xale dana leen jël opéré leen jox leen garab yi ci ci wàllum at bi bu déwénee tamit mu defaat lu ni lu ni mel donc dafa di partenaire ba nga xamante ne ni ñun ñi ngi rafet lu taxawaayam ndax mu ngi dimbali xale yi. ci seen intervention xam naa leen itam dina si dina si dellu si waat euh, mais am na si yeneen type xeetu opération yoo xamante ne lu la ñuy wax des cas lourd nga xamante ne yooyu tamit ñu ngi ciy waxtaan pour ñu mën ñu ci jàppale. Euh, six euh, camps chirurgical chaque camp c'est pour moyen quarante enfants des chirurgies générales euh, le montant c'est dix mille euros par euh, camp c'est-à-dire six millions cinq cent mille ou bien six millions cinq cent cinquante mille francs CFA donc multiplié par 6. Euh, on a commencé avec l'hôpital euh, depuis deux ans, par un seul camp, et petit à petit, euh, on a augmenté deux camps, et jusqu'à on a un accord maintenant pour faire 6 camps. Pour 2022, c'était six camps, mais on a jusqu'à aujourd'hui, on a fait que trois, et ça reste trois. Inch'Allah, on va les terminer avec le début 2023. Et pour le programme 2023, aussi, sachant, Inch'Allah, il y a 6 encore, 6 camps. Et c'est une occasion pour euh, vraiment euh, profiter de cette occasion pour remercier l'hôpital de Gymnasio euh, pour la bonne partenariat. La vérité, il y a une bonne collaboration avec l'hôpital parce que quand on commence juste au début, je me rappelle bien qu'on a commencé juste pour des consultations gratuites. Des une journée de consultation gratuites seulement. On arrive à faire, Inch'Allah, 6 camps pour 240, même pour peut-être 300 enfants qui vont bénéficier. Ça, c'est important.